yu parce que fil yi dañoo duggante écran yi dañoo duggante waaw. mbokk yi aùzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit ñi seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sunu borom moo dogal ñu dellusiwaat ci bërëb bi nga xamee ne moo di 2STV am yéene jëm ci wàllu waxtaan woo xam ne wii dafa jëm ci yoonu murit waaye nag jëm ci mbiru Serigne tubaa ak ñi mu yar ci keppaaram. ñu tànn ci nag ay nit yàlla sëriñ Omar Diop moom ca Mbàkke ca la bokk ak fi mu jaar ci àllu njàmbur boobule waaye itam Cheikhul Khadim tam ci boppam ak yaramak ak njàngale bi itam ci la bokk et sëñ Abdou kon ci loolu nooy jàngate sëñ Omar moomule nitu yàlla kooku le digganteem ak sëriñ Touba euh, aoudu billahi min alsheytan arrajim a arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi anama alayna bilimani walislam mhm. rabbil aalamiin rabbana bi nicmatihi al-alwaan arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin yaani arrahmaani rahiim bi ibaadihi fi lqubuuri birrahi warrayhaan maaliki yawmi diin yaxkumu bi ala ibaadihi bil adli wal ihsaan iyaaka nacbudu ay naqusuka bil ibaadati fi kulli waqtin wa awaan wa iyaaka nastain ala aadaai wa nafsi wa shaytaan ihdina siraat almustaqim bil istiqaamati ala al iimaan siraat alladina anamta alayhim min ahlil hidayati ila tariqil jinaan gayril magdubi alayhim wala dalin amin ija amin ahlul kufri wa tuqyaan amin ijabatan li duaa wa shukri li maliki dayaan asalaamaaleykum mbokk yi seetaan noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di jëcc ci nuyoo bi alxalifatul am li taifatul muridiya sëriñ Sidi Muxtaar di nuyu sëriñ Cheikh Mbacke Diop mi nga xam ne mooy xalifa kër Sëriñ Omar ak sëriñ Maxtaar Diop rakam du nuyu ñi nga xam ne noonu bokkal plateau bi Serigne Maoda ñoo ngi lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. di nuyu Seydina Aliou mi nga xam ne moo nekk sa wet. Mm-hmm. nga laajte laaj bu am solo mooy eh, taarif xamle kan mooy Serigne Omar rawatina diggante Serigne Omar ak Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu bu ñuy xamle Serigne Omar dañuy wax ne Serigne Omar radiyallahu taala anhu li alquran waxoon rek minal muminina rijalun saddaqu ma ahadullah alayh mm-hmm. wa minu man qadaa nahbahu wa minu man yantasir wa ma yatbadalu tabdila bu mhm. bokk ci way gëm ñi nga xam ne danoo daalante seen borom subhanahu wa taala ci alquran bi nga xam ne sababu nusul bi mooy diggante kéefar yi ak jullit yi ci li nga xam ne moom la jullit yi daaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw li ñuy def suñu bokk ci góor yàlla yi nga xam ne bin seenu gëm degré bokk ci lépp loo xam ne fas nañ ko yéene def ci seen diggante ak seen borom rawante na digganteem Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala mi nga xam ne moo doon wasilaam loolee pas-pas boobu lay gis ci kawam waaye bokkoon ci jëmm yi nga xam ne hmm. danoo jaayoon bànneexu àdduna bii hmm. jënde ko maanaam ëllëg yowmal xiyaamatil akbar hmm. moo tax ñu ne baaxu mataa dunia azaila bi naimil axira alqalida dafa dafa bokk ci gaay yi nga xam ne danoo jaay li nga xam ne mooy àdduna jënde ko alaxira waaye bokkoon ci ñi nga xam ne ba tey lépp loo xam ne lu lislaam bañ la woon nga xam ne dafa sukkandikoon jëloon tànkam teg ko ci sunna loolu suñ tubaab wax ci oqal bu ko am naan baaxu fudulan mhm. bi dicrillahi xaaliqim fa namu fi leyli baaxu bi munajaat ah, taj fil madajia fi mhm. leyli junubuhum naasina salma wa leyla bil busharat nga xam ne ñooñi suñ tubaab di tudd ci xoqal bu ko aw suñu Omar Diop radiallahu taala anhu bi mu dikkee ñooñi rek la joxoñ fas yéene ci jaar mhm. buñ ko doon xam la ba tey dañuy wax ne loolu imaamu Shafii waxoon ne inna lillahi ibadun fatuna taraku dunya wa xaaful fitana su borom sàkku na jaam ñu xel ñoo xam ne biñ falama nasaru wa aqalu biñ xoo biñ xoolee xam ne adduna amul solo li ci nekk baaxul lan def mooy wa taqasul amala saaliha sufuna danoo jël danoo jël ne lan la xam ne mooy jëf ju baax def ko muy seen gaal gi ñu war ci adduna ngir dem yowmal qiyaamati akbar suñu mar nag bu ñu dikkee bokk ci gaañooñu imam Shafii di wax foofu waaye bokk ci ñi nga xam ne tamit hmm. noonu la boroom xam-xam ba di wax naan doomu aadama bi li muy sàkku ni koy sàkkoo nam gën a foore na gën a amee doole na maqaama ma gën a kawe noonu la nattu yi di gën a bare mhm. moo war a bi mu dikkee sóobu fa séene soobu ci lislaam fa séene sóobu jébbalu jaayante ak sëñ Tuubaa noonu la aw yoonam it xaw a gudd mhm. mooy kulluma azuma matlaba wa sharufa saawa maslaka wa taala tariqa lépp loo xam ne rek maanaam sàkkutifam dafa dafa dafa da doon lu jafe maanaam loo xam ne ëllëg lañ cay amee lu ñëpp di soow la la la koy may mooy ay coono ak i métit waaye nag it faridun anil qullaan fii kulli baldatin ida asmal matlubu qalal mushaaib mhm. faw rek da ngay écarté wu dem ci bi ay yoo xam ne da nga fay mën a defar mën mën faa defare kon jëmm jooju muy sëñ Omar bokk na ci ñooñu nga xam ne ñooñu la borom xam-xam yooyu di wax sëñ Maodo sëñ Omar radiyallahu taala anhu mi ngi soqi koo ci ñaari waajur yu sell waajur wa mu jigéen soxna daag bekk lañ koy wax waajur mu góor Samba Diop lañ koy wax mhm. waaye moom yi nag bi mu gënee jamono waajur mu góor tuddewu ko woon suñu Omar Njuga Xaru Diop la ko tudde woon gane jamono ci atum 1855 ci dëkk bu ñu wax njara wax ñu ko njara kër Saali mhm. fa la gane jamono génn jamono 1940 dund ci at kon 85 juróom-ñetti fukki at ak juróom ñoo xam ne moom la dund ci biir adduna soog di wuji borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne gënee na jamono ba noppi nag ba dem ba mat a jàng ay waajuram ñoo ko tàmbalil jàngam noonu di ko Sëriñ Tuubaa ci masaalik mooy boo amee doom yóbbu ko ci daara sëriñ bi nekko ko neel baa mu a baa neel siin mu ne siin neel mu mu miim Sëriñ Tuubaa nee sëriñ bi donga bi ña ay waajuram ñëpp bu ëllëgee mun farta ñëpp ajjana jëm moo tax mu ne wa xaysuma yubasmilu xaysuma yubasmilu shabiyu fi maktabin yaktubu lil aliyu li walidayhi wa li man yuallim baraatan min annaar na taalamuun kon foofu ay waajuram jaaral nañ ko fi ginnaaw bi mu jàngee alquran ba mokkal alquran dafa demaat jàngi xam-xam bokk na ci ni nga xam ne mënees na ko wax ne jaar na fa ci jàng xam-xamam mooy jëmm ji wax Mor Balla Ndiaye suñu Omar jaar na fa jàng fa mm-hmm. gannaaw ba nag tundu njaamoro daara ya fa nekkoon wër na fa jàng fa ba am fa xeeti xam-xam yi wax yépp ka nax wi كالنحو والعروض والبيان ولغة العرب والمعاني wa baadahu tafsir lil quran summa al hadis qalahu dayman noonu ko sëñ Tuubaa jàng muy aalaat yi xam-xam yi nga xam ne nit ki balaa mën a tafsir quran day xam aalaat yooyu suñu Omar jàng na aalaat yooyu ci jëmm yooyu wax Mor Mor Balla Njaay gannaaw ba nag ba fa jógee ca la wax na ne daara ju ngeen ñi dégg ci tundu njàmbur man Omar dem na fa sàkku ji fa xam-xam ca la wax ne ci jamono yooyu ci la ko sumburoom wër sëgalee gis ab taawam mu Serigne Assane waaye nag la jiitu mu di ko gis aman doom ju ñuy wax Serigne Abdul Qadir ndax nee naa la fii Abdul Qadir Jilaani li tax mu tudd ko doom mooy werdul Qadir la yoroon duñ ko liggéey. Mhm. moom suñu Omar radiyallahu taala anhu mhm. kon loolu bokkoon na ci li nga xam ne da tënkoon tënk na ko moom ci am njàngal ci am njàngam daan ne kat jamono yi muy am ñaar fukk ak juróom daara ju ngeen ñu dégg ci tundu njaam rek dem naa fa sàkko ji fa xam-xam ngir lan ngir dolli alewum ba loolu jeexee nag mu am nag benn pas-pas pas-pas bi mooy génn dem jàngi mottali ji yeneen leneen yeneen xam-xam su ñëwee woote am mën xëj mhm. aw yoon woo xam ne da ciy jaar jaarala ci mboolem képp koo xam ne bokk na ci askanam ngir lan ngir yar leen jàngal leen eggal leen seen borom subhanahu wa taala pas-pas boobu nag bi mu ko amee ba nar koo def waxtaan waxtaanal ci benn xaritam bu ñu wax sëriñ daaru Serigne Darou Xasan Ndiaye jamono yooyu nag la ko sëriñ Darou wax ne ko sama sëriñ bi am na koo xam ne de soo ko gisoon ba jox ko sa bopp sa adduna ak sa àllaaxira dana la ko defaral muy Cheikhul Qadim radiyallahu taala anhu ndax xam nga sëriñ daaru li taarix nett li mooy juróom yi njëkk sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ci la bokk mm-hmm. mu ne ko nag kon sa waajooju nag bu dikkee nag ma ko wax ma jox ko sa bopp yàlla dogal mu am ab diir sëriñ Omar radiyallahu taala anhu yónni taalibe bi ñu wax baraan xarifaal bi mu dikkee wax ko sëñ daaru fekk na fa sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu muy jàpp njàppam tisbaar bi mu ko waxee bi mu ne ko fu alafam ne mu ne ko mu ngi ci dëkk bu ñuy wax Kër Mor Abdou mu ne ko nee ko fa jaar nee ko danaa fa jaar nee ko danaa fa jaar googu nag fekkoon na sëñ Omar radiyallahu taala anhu njëkk sëñ Tuubaa di fa ñëw di fa jaar fekkoon na ko mu nekkoon ci lu mu doon ji jàngale alquran mhm. di jàngale xam-xam yor métier métier yonent yàlla Ilias di ko def ndax dama lay wax ne ñaar fukki yonent ak juróom yi kenn ko ci nekk amoon nga métier dërëm moo tax eh, yenn ci maggi taalibe yi ku ñu wax maam Jaaja Caam gis nga ci bayitam yooyu mu koy taalif tëggan daan ko Cheikh Omar ay baabul ulumi gaaya mhm. gàgganti fóora yaa tuxal badaaya mhm. daa sànq yàlla yaay baram yaa sedd ker yaatu gannaaw nampal ma dégg nga ci biir bayit ya ma nga naan ngir diine def ko tubayam sopp yoneen bay mbaxanam mu ñëg liggéey la def mu di wetam nga xam ne kon loolu moom la la la ko doon dundee di ko def moo waral bi Sëñ Tuubaa di jaar ci dëkk ba di ko fekk fekkoon na ko muy jàngale xam alxuraan waaye fekkoon na ko mu yor métier moo xam ne mu ngi koy métier woo di ko def muy lan lu mu dundee lu mu dundale donga yi lu mu dundee mooy di ràbb ay séeréer di ko di ko jaay bi nga xamee ne Sëñ Tuubaa radiyallaahu ñëw na ba fekk ko foofu mu nekk na ko ndongo li loo bëggoon mu ne ko dama laa bëgg jox sama bopp bu ëllëgee fu nu fayee góor yàlla lay fay ma ci mm-hmm. Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala na ko sama borom na ma nangul ko sama nee na ma nangul ko nekk sëñ Tuubaa di ko wax sa borom ne ma nangul la ko mooy Seexul Xadiim dafa dox juróom-ñaari jéego julli ñaar rakka sëlmal laajaat ko ne ko ndongo li la bëgg mun ne ko jox la sa bopp bu ëllëgee fu ñu fay góor yàlla fay fay ma ci fay ma ci mu ne ko sa nee na ma nangul la ko jéeg kon ñu ñu xam ne kon sëñ Amar ak jébbulam isnun min allahi la hmm. ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax wa daajan ilallahi bi isni wa sirajan munira hmm. ci isn ci isn la nekk la doon dox suñ suñu Amar it ak jébbulam ci suñ suñ Seex Ahmadu Bamba man isnu min allaahi la mhm. waaye bi muy jébbalu bi mu joxee boppam sëñ Tuubaa daana ko noo tudd mu ne ko njuga xari jóob mu ne ko tey jii kat soppi naa tudd tudd naa la Seydina Omar ibnu Xataab ndax yaa ngi ma fekk fa Omar ibnu Xataab fekkoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fanweeri taalibe ak juróom-ñeent yaa dikk doon ñeent fukkeel bi na ko noo tudd mu ne ko njuga xari jóob mu ne ko Omar afdalu min njuga ca la sansa turam ca boo demee ci xasida graayee googu wa huwa al mutimmu sawi l islaami yow ma xada mhm. sëñ yonent bi sax san daana ñaan ñaari omar yi kenn dugg ci lislaam omar ibnu xataab far dugg ci lislaam bi mu dikkee mottali ñeen fukki saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu omar jom mi ne bi mu dikkee bi mu dikkee ba jéblu Cheikhu Xadim moo ñeen fukkeeli taalibe Cheikhu Xadim radiyallahu taala anhu waaye nag it bi nga xamee ne def jéblu na ngir li arab di wax ne bind day sax wax boo fa jógee mu jóge fi mhm. moo waraloon moom bi mu tagg sëñ Tuubaa ci xasidak hamdan liman qad malaka riqaba wa amana al irfana wal adaba mu baxaala ca tawkiit ca def ca tawkiit joo xam ne day fedd li waxi sëñ Tuubaa jooju mhm. fasma ayaa xilliyu yaa walliyu bi anna ismu amaru faqili li qawli man qaala wa huwa afdalu ay amarun mutaharun mu fadal mhm. di fedd li wax ji nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ne ay amarun mutaharun mu fadal loolu ci mag ñi ci ci gëstu gi ni gëstu ci mag ñi nett lan nañu ne euh, sëñ maam Cheikh Mamadou Habib Diop doomi sëñ Omar la woon mas naa siyaare ji sëñ Abdul Xaadir bi mu siyaare ji sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul na ko na ko wa mun na ko jóge xarit Diop mun na ko tegi xam nga li tax sëñ Tuubaa na ko jëfam dafa jëf ak jëf dafa nuróog jëfi Seydina Omar ibn Xattaab kon moom am na mutasaabi boo xam ne euh, boo xam ne amoon na ko ak Seydina Omar ibn Xattaab tabaaraka moo waraloon loolu loolu sëñ sëñ bi jokkatu roowul waaw sëñ Tuubaa kon ci loolu gannaaw bi nga xam ne loolu eh, sëriñ kon ci loolu naka nga jàngatee nit yàlla ko baax kooku la Omar Diop waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mhm. sëñ Maodo ñu ngi lay siyaar bu baax. Mhm. di siyaare sañ ustaas imam. Mhm. di siyaare it Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba. waaye di nag Serigne Cheikh Mbacké mi nga xam ne jataay bii ci moom la bàyyeekoo. moo na fi yabal ñu ñëw ngir nga dalal nu ñu waxtaanee si way juróom woowu muy Seydina Omar. ak di siyaare it Serigne Makhtar Diop mi nga xam ne mooy rakam te jël léppam jox ko kon Serigne Maodo foofu mu taxawee waxe fa Serigne Omar niñ ci mën a jàngate man li ma ciy jàngataat mooy sëñ Omar ku ragaloon yàlla la. Mhm. ku nangu woon a jaamu yàlla la. Mhm. sëñ Tuba sëñ Omar it ku amoon yitte ci digg boppam ak boroomam la. ndaxte comme noonu ma ko waxee ci jébbalu gi nga xam ne bi ko sëñ Tuba fekkee njare wax yi ba mu jox ko boppam foofu am na fa fekkoon na fa mbooloo mu bari ndax da daan jàngale ak a yar bi mu ñëwee nag sëñ Tuba bi ko sëñ Omar joxee boppam ba noppi. ak mbokkam ak ñi ma àndaloon dañoo jóg ne ko Serigne Bamba dey boo yóbboo Omar Diop mii mu Bamba wu ci Bamba ji da ñu tooñ loolu lañ ci jublu taxawee ba nga xam ne sëñ Omar da leen ko taxee woon ci diine di leen jàngal di leen yaral ku faatu mu jullee ko ku judd mu tudd la loolu lañ yaakaar ne bu ko sëñ Tubaa yóbboo ñoom dootuñu am lu mel noona ci la leen sëñ Tubaa xamal na leen nag Serigne Omar mii dinaa ko yóbbu def lu gën li nekkoon ci moom mhm. def li gën li nekkoon ci moom nag mooy yóbbu ko tàggataat ko yar ko ba àggale ko fi nga xam ne moom la bëgg àgg mu ci suñu borom subhanahu wa taala ba mu ko sëñ tubaa defalee loolu nag ci la sëñ Omar dellusiwaat nag njaambur te ba mu dellusee ñooña taxawoon naan ko boo yóbboo Omar mi bamboy ji danoon torox ba mu ñëwee ba mu leen fa fekkee ñam fa fekkoon ñëpp te leen a gën loolu bokkoon na ci defaru sëñ Tuubaa moo tax sëñ Omar ni ma la ko mën a misaale comme ni ko oustaz waxee moom yar ak jàng ak jàngale lu ko yitteeloon la mm-hmm. ba loolu tax na njabootam gépp ci loolu la ñuy dox ndax boo demee ca pénc ma daaray alxuraan nga fa ñuy jàngal xale yi di leen yar daaray tarbiya it am na ca ca ngay mooy dëkk boo xam ne moom la mujj sant xam naa bu néew ba ci biir danañ ci ñëw leeral ko ci mm-hmm. waaye daal li ma la ci mën a misaal daal Serigne Omar daal kenn la woon koo xam ne jàmbaar la joo xam ne jàmbaari lislaam la woon ku yaakaaroon Serigne Touba la ku ko doylu la woon ku ko wóolu la woon mm-hmm. ndaxte léppam da ko jëloon jëbbal ko Serigne Touba mm-hmm. gi mu lépp nag Serigne Touba yaakaar ji amoon ci Serigne ak wóolu gi nga xam ne wóolu na ko sëñ Tuubaa moo waral tey lii lépp ndax xam na ne moom bu fekkonte ne toogoon na dem fekkiwul sëñ Tuubaa amaane lii mu am tey du ko am. Mhm. kon nga xam ne sëñ Omar. dëgg dëgg maanaam sëñ Tuubaa ko defar. lu nekk ci moom sëñ Tuubaa ko def. Mhm. lu mu am ci kaw suuf àdduna ak alaaxira sëñ Tuubaa moo ko defal. mu yenki ko nag ci njabootam. mu yenki ko nag ci njabootam. ba tax na fi mu ne doxalee ni mu ko waxee ci jaamu yàlla ak liggéey gi njaboot gi képp ku leen gis ku xam ku jaxasoo ñoom sax xam ne njaboot lañ goo xam ne lu dul liggéey ak jaamu yàlla yitteelu leen mhm. mooy kon loolu mu doon ñaan Sëñ Tuubaa ne ko na nga ma may sama njaboot ñu bokk ci jaamu yàlla yi gën a sell boo demee ci ci ay mbindam daana ko nettali mhm. kon nga xam ne kon kooku la mu la ko Sëñ Tuubaa defaloon la ko Sëñ Tuubaa yare woon muy jaamu yàlla ak liggéey ba mu ñëwee moom la wettiwaat ci ak njabootam loolu moo waral. moom moom ca la nekk rek daay man ca la saxit daay man ba ñii fi nekkit ci lan sax ci tàmbalee ci Serigne Assane mi taawam ba Serigne Cheikh Mbacke Diop mi nga xam ne moo fi nekk. d'accord dinaa dikkaat ci loolu ci jaamu yàlla am. kon gannaaw gannaaw jaamu ko comme abid la woon dégg naa nga wax ko léegi. alim ak abid. abid suufi. Mhm. xam xam nga annaasu ala salaasa aqsaamin. Mhm. alim abid suufi. Mhm. ñett yi ñett yi mooy ñett yi nga xam ne ñoo séq doomu aadama yi ñett dañuy wax ne borom xam lii tasawuf dañuy wax ne nit ñi ñett ñoo leen composé borom xam-xam jaamukatu yàlla suufi bi mat bi ñoom ñett ñëpp nag kenn ku ci nekk yaa ngi jëlee cër ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. bu dee aalim bi ay aqwaalam ay waxam ay jëfam ci yonent bi sallallahu alayhi la ko jëlee mhm. bu dee aabid bi mooy ni ay ay ay ay ay doxalinam moom it ay jëfam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bu dee suufi bi tin kenn ku ci nekk cëng cëng cëng ko jëlee ma waral sëñ Tuubaa di bi wax naan wala aalimi suufi ah aalimun amil wal xaasilu suufi wal xaasilu suufi aalimun amil bi ilmihi xaqiqatun walam yamil nga xam ne kon da ngay gis ne kon suuf mutasawif bi da doon aalim amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil waaye nag munqatian li rabbihi min al bashar musawiyan dinaara ayni bil madar Sëñ Omar nag loolu daf ko daloon aalim la woon abid la woon suufi la woon boo xam ne ci li nga koy xamee rek mooy dëkk yi mu daa sanc di fa nekk loolu nga daan xamee ci ñetti melokaan yi xam ne benn bu ci nekk am na ko ba noppi nag ci ni ko sëñ Aliou waxee ne lu mu am ci mu sëñ Tuubaa loolu daf ko gën a euh, daf ko gën a euh, firndeel ci ci ci ay wax ci ay waxam loolu waraloon ci aalimam googu ak abidi suufi googu mu doon koo xam ne zahid la woon dafa dëddu woon adduna dëddu adduna googu mu dëddu waroon mu doon sanc ay dëkk ndax nee naa bi nga xamee ne sëñ Tuubaa jibbal na boppam sëñ Tuubaa mm-hmm. te sëñ tubaa ca dëkk ba ne ko ni ko sëñ naa Aliou waxee ne ko su ngeen ñëbbee Omar Diom yi mu bamba sa bamba ji da ngay tooñ sëñ tubaa jël loxoom bu tëdd ba teg ca boppam sëñ sëñ Omar ba ne leen seen waa ji danaa ko yóbbu def leneen lu gën nekkoon ci moom andi leen ko ci xabdu damm ba mu ànd moom tarbiya ko ñetti at mhm. ñetti at la ko nag am nga sama ngërëm ngërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? euh, ngërëmal yàlla mhm. na ko dikkal dellu njàmbur jàpp sa njàmbur mhm. abit gi si gi si gi may wax nii la nga ko njëkk mooy Omar ñaata loxo nga am mun na ko ñaar mun na ko aliyum naa kitaabullahi nday joob nañ ci jàpp téréb suñu borom bi ndax bi muy jébbulu kaamil alquran la jébbuloo bi ki suñ tubaab yooyu kaamil la ko joxaat moo war a mën a ko aliyum naa kitaabullahi nday joob bi nañ ci jàpp téréb yàlla bi wal yusra sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam càmmoñ nañ ci jàppee nañ ci jàpp sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ko Omar mun na ko mbàkke mun na ko loo gisul ci alquran gisoo ko ci sunna bu ci attewu moo daana wax na si suñu ma daana wax ci ay mbindam ni na man na man man Omar de lépp lu ma waay laaj danaa la tontu ci du ma génn alquran kon loola. Euh, xam-xam la xam-xam la. loola loola loola xam-xam la xam-xam bu bëri sax. loola xam-xam la. Mm-hmm. ma ngoog bi mu jugee foofu nag ci la dem njàmbur jàpp njàmburam ndax suñu tubaab ne ko dama njàmbur jàpp sa njàmbur. Mm-hmm. waaye nag ñett bi ko fa bëgg. dund ci faatuwoo kullu nafsin saa yaqatil mawti mm-hmm. kullu man alayha faanin kullu shay'in haalikun illaa wajhahu wala moom tafasir wala jay dañuy wax dañuy wax ne alquran kulli yëpp doo am alquran kulli yëpp doo am dafa am kullul am am kullul xaas kull ñetti kull yooyu nag bokk na ci al kullul am kullu man alayha faan bokk na ci kullul am kooku am la waaw xam nga kooku am la kullu shay'in haalikun illaa wajhahu kooku am la am la waaw ah kullu shay'in haalikun illaa wajhahu kullu nafsin zaa'iqatul mawti am la loolu am la mhm. kull yi ci des nag am na ci yi ci bëccëg yoo xam ne xaas lay doon kon demal njaamur te jàpp sa njaamur te ñett yi bi ko fa bëgg mooy dund ci faatuwoo mhm. suñ borom mayu ko mayu ko yonante bi mayu ko sëñ Tuubaa ndax am na benn baykat waykat boo xam ne falaw kaanati dunya mhm. taduumu li waahidin la kaana rasulullahi fihi muqlida su fekkoon ne adduna kenn ci des yonante bi salaa salaam moo ci des te mhm. la ko fi jël du fi bàyyi kenn ñaara ba mu ne ko baax ci kan nga ñesu la sëñ Maodo kenn mënta am ci ru yàlla ca teguñu sab der lu ñaaw mënta ñàkk wala waxuñu la loo xam ne yow mii boo deen ku dek koo gaaw a découragé da ngay découragé wu dan lay xas dan lay xas mag ñi fi jaar ñëpp dañ leen ay coono seen i bokk ñoo leen njëkk njëkk njëkk njëkk njëkk a walbati saxiix ah, ah? Mhm. seen i bokk ñoo leen njëkk wakkee waaye loolu lépp dañ koo jël muñu ko ngir lislaam suñ tubaa na ko na ko baax ci kenn nga ñee si loo kenn ama ko kenn beneen bi ci des mën ko dugg àjjana ci jaamu woo yàlla xam nga sëñ Maodo àjjana dañ ko yombal mhm. mais sëñ tubaa mi nga xam ne moom la sëñ Omar jox boppam yaakaar ko àdduna ak àllaaxira mhm. na ko bu ëllëgee dama bëgg bu ëllëgee lu ñu fay góor yàlla fay ma ci mhm. lam ko digaloon mooy jaamu yàlla mhm. ak liggéey jaamu yàlla ak liggéey ndax boo demee ci bayitam yu bayit yooyu xam ne sëñ Tuubaa moo ko moo ko bind sëñ Omar dénk ko ma ngay wax naan yu qaatibu baadu baadu ashaabihi Omar Diop ma allaahu anhu kulla xoob ma allaahu anhu kulla xoob laa tuusiran yaa saxibi hawaaka wa nafsa wa dunya ala mawlaaka faqaddiman amra alilahi samadi ala siwaahu li tafuusa fi xadi wa man yuqaddim amra duniyaahu ala amri ilahi fa nukuuhu jala na ko yow Omar maa ngi waxante kenn ci samay saxaaba ñu di ko Seyna Omar Omar Diop xam nga nag maqaama saxaaba lu foor la maqaama saxaaba bokk na ci as-suhdu al-wara atawakkul yaa ngi fi dégg al-fana al-baqa yu jëpp ci maqaamaat saxaaba yi la bokk moo tax sëñ Tuubaa mi ngi wax ci ci yenn ci ay na ne eh, inna sahabata ridwanullahi taala alim ajmaina aqwaluhum wa afaaluhum wa harakatuhum kullu mutawajjin ilallahi subhanahu wa taala mhm. nee na sahaaba yi seen i wax seen i jëf seen i yënguti lépp suñu borom subhanahu wa taala la ko jub la ko jël kon bu sëñ Tuubaa di waxante sëñ sëñ Omar na ko nag yuqaati baadu asaabihi maa ngi waxante kenn ci samay sahaaba ca maqaamu sahaaba li mu foore kon am na cër ci sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu bayit ya nag mooy yo Omar bul booyal sa bakkan laa tusiran yaa saahibi hawaak wa nafsa wa dunya ala mawlaak bul booyal sa bakkan ci àdduna lu la neex nga nekk la nga necc déedéet na nga jiital ndigalel yàlla yi coog ci teg leneen ndigal lu dul moo lépp loo man di def na nga jiital ndigal yàlla faqad di man amara illahi samadi ala siwaahu nag ngir lan li tafuusa fi xar yi boo bëggee taxe ëllëg doo ko jiite na ko nag yow Omar wa may yuqaddim amra dunya wa ala amri illahi fa nukuhu jëla képp ku jiital mbiri adduna sotti teg mbiri yàlla nee na ko mun wër bu daf am dafa ngoog mhm. kon loolu rek moo la xamal ci ak ci dénkaanam boobu kon moo tax mën na ko dugg àjjana ca jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala mayu kenn waaye jaamu yàlla googu am nga foo koy teg mooy sunna su yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam rajaul janna bi nga wax léegi aywa bila taaati bi sunnatin maa xururun yaati mhm. kon ci sunna ci sunna nga koy teg mhm. sunna googu nag nga koy teg mooy mooy waral jëf ji sell ca sunna ñett la maa xaala rasul sallallahu alayhi wa sallam wala maa faala saxaabi wala ma ma ma ma ma aqarra li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wala li saxaaba yi def ci kanama yonente bàyyi leen ci wala lim lim li nga xam ne mën da koo saxal saxaaba yi dañ ko def mu saxal mu saxal ko loolu mooy sunna kon suñu Omar kon day jël tànkam te ci sunna ndax bu fàttali ne woon naa la al yumna kitaabullahi wala sira sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu waral nag mu sañtoon dëkk yi dëkk mel na daaru ibadat ca ma wax la léegi ne la ma wax la la dëkk boobu ay naar ñoo ñaari naar ñoo nen fa way ci ay bayit am na ci bayit yi naan daarul ibadat axshaaka shuruur bihi mhm. wal yumnu wa nasru wa tawfiq wa tamkin wa safar mhm. ak yeneen naan ko dëkk la boo xam ne dëkk dëkkub mutasawif la dëkkub jaam ko te yàlla fukki lu mat fukk bayit ak ñeent yoo xam ne am benn naar gànnaar way na ko ci way na ko ci dëkkub sëñ Omar Diop mhm. dëkk bu ñuy wax tamit dettale sancaat dëkk bu ñuy wax maanaam jéeki jéeki sañc dëkk bu ñuy wax Touba ngay yooyu yëpp ay dëkk la yoo xam ne li tax mu sañcoon ko mooy a tarbiya wa tarqiya xam nga tarbiya ñaar la mhm. a bi bil maqaal mhm. wa bi bil xaal mhm. a bi bil maqaal mooy wax da ngay dëkk moom ndax bul fàtte ne sëriñ si ñett lan xam nga su mu tasawuf bi dafa wax ne an naasu ala salaasi aqsaamin waaye sëriñ Tuubaa tim nee na ñetti sëriñ ñoo am sayxu taalim sayxu tarbiya sayxu tarqiya sëriñ bi jàngale sëriñ bi yare sëriñ bi eggale ci yàlla seexu taalim ñetti sart la am sart mooy xam-xam balloo ci alquran ak xadis làmmiñ wu leer maanut ak lu mu na ne xaw ma ko bu xamee ko xamu yebal la ca mooy se sart seexu taalim seexu tarbiya mooy day xam li sart seexu taalim bi xam ba noppi ñett yu yëpp daw ne ci moom ba noppi mu xam jëmm ji tabiaam na tiram ndax ulama yi mu tasawuf dañuy wax ne doomu aadama fanweeri sidda ak ñett ñoo ci nekk fi sidda gu ci nekk bu feebaree war mu wopp am na sayxu tarbiya bi jëf ju mu lay jëfloo ngir mu saafara loolu kon sayxu tarbiya bi dafa war a xam loolu hmm. sayxu tarbiya bi nag mooy ki lay eggale sa borom subhanahu wa taala hmm. moom mooy day xam li kee xam ak li kee xam ba noppi mën laa jël eggale sa borom subhanahu wa taala moo tax suñu tubaab mag ñim daan defaru kum ci defar ba nga defaru dalay ber yóbbu sanc loolu dëkk yoween taftal la mbooloo nga dem defaru nga dem defaru ji moo waraloon hmm. ku mel ne suñu Omar Diop bi mu demee ñeen fukki bi taali bi suñ Tubaa ci yoonu murid mu sax suñ suñ sañ ci dëkk yi doon tar bi ak ak a defar ak a defaree. très bien mbokk yi ma fàttali na ñu ngi ci 2STV ba léegi di mm-hmm. waxtaanee Serigne Omar Diop ak itam digganteem ak Cheikhul Khadim. Mm-hmm. Euh, ngeen wax ci wax ju am solo parce que tamit mm-hmm. euh, maanaam. Euh, taalibe la bu àndoon ak sëriñam waaye sëriñ bi nag teg ko ci siraatal mustaqim taalibe bi tege ci siraatal mustaqim dafa naa sëñ Aliou léegi la wax kon makkaan moom nga xam ne ca nga xam sax seen bis kon daal yow jàpp nga ne mhm. maanaam maanaam lépp loo xam ne li jëm na ci jaamu yàlla mhm. suñu amar moom ci looloo koy maanaam ba ba ni mu demee ci wuy ji boromam mhm. teggu ca tànkam ba noppi yar ci nit ñi ba nekk taalibe murit wallaahi ah, loolu waaw waaw maanaam maanaam ca rek. ca loo moom ci loolu nag la saxoon. ba comme ni ko seen ustaas ba ci dëkk bi nga xam ne moom la mujj a sanc muy ngay. nga xam ne bi mu nekkee Mbàkke Bawol. nga xam ne dafa nekkoon dëkk bu jegee dëkk ba. ci la tuxoo foofu ndax la fa xam ne dañ ko fa daan def te neexu ko te jaamu yàlla gi nga xam ne moom la bëgg ci diggante digganteeg suñu boromam kon dem fu wéet moo ko ko fay mën a may ci la jóge mbakke Bawol googu nag dem sanc ngay ngay siini googu bi mu koy sanc nag ci mii ci ñaari at wala ñaari at gannaaw Mbàkke la sanc ngay mhm. sanc ngay googu nag bi mu ko doon sancit comme loolu moo la wax rek yar dongay jàngal leen fexe ban gën a jege seen borom fexe it nan la ñuy def ba gën a ragal yàlla. Mhm. ndax nit ki lu mën a nekk ci moom te amul ak ragal yàlla loola du lenn. ci lu te sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ko yar yar gi ko yar. ba ñëpp xam ne Serigne Omar mii nga xam ne moom moom moom moo nekkoon ci keppaar Serigne Touba Serigne Touba képp ku nekkoon ci keppaaram boo demee feneen foofa nekkee ku la xool xam ne ki Serigne Touba li ne ci yow Serigne Touba ko ci def loola nag li jëloon suuxat ko ci ak njabootam njabootam gépp nag koo ci gis ci tàmbalee ci Serigne Assane noonu ko mag ñi waxee naan sëñ Tuubaa sëñ Omar daana wax ne aw ma ay ñaari doom benn doom la ba ba ci sët ba mooy kenn sëñ Asan ba sëñ sëñ sëñ Maxtaar Jóob mi nga xam ne mooy caat ñoom ñëpp kenn lañ ci bëggante bëggante woon ak wóolante gun wóolante woon ak dimbalante gun daan seen bopp te loolu rek seen way juróom moo leen ci nampataloon ci la sañ ci ngay googu nag boole faak ànd faak mbokki taalibe yi mbokki taalibe yi nag suñu la koy wax mooy njabootuk boppam la mm-hmm. njabootuk boppam kese la fa boole woon ndax sëñ Omar si ma la ko misaale léppam mooy boppam ndax ay doomam ak i sëtam ak i jarbaatam la boole woon ndax bi mu tarbiyee sëñ tubaa ba sëñ tubaa yeewi ko ba yebal ko mu dem njàmbur ba mu nekkee njàmbur taxul woon mu tasaare ak njaboot gi da leen a boolewaat ci ci benn jataay njaboot googu nag ñoo màgg tey ba kenn ku ci ne tasaaroo ci àdduna sépp bu ko defee nag yar ga nga xam ne moom leen daan yar nag képp koo ci gis li ma ko waxoon ci njëlbeen nga foo jàkkaarloog moom rek danga xam ne kii taalib sëñ Omar la. moo tax ngeen ba ko defal bis boobu. moo tax nag ñëwuñ ko waajal bis bi bis bi nag sëñ Maodo moom moo ko tàmbaliloon boppam du loo xam ne dañu dafa dem ba bàyyi ko fi ñu tàmbalil ko moom moo tamoon ba xamee ne ba mi ngi waajal dem jàkkaar la joog suñu borom ci la wax ne Serigne Mouhodou Mouhodoul Habib la ko woo muy doomam. moom mi nekkoon na fi xalifa moo doon ñeenteelu xalifa bi mm-hmm. moom it tabaxal na Serigne Saliou Mbacké ci xelkom daara ju mag mm-hmm. mooy sëñ Mourou bi moom la woo nekkoon dama laa bëgg a yónni njaamur fépp fi koo xam ne sa bégam bég la nga ñëw santale ma suñ tubaa suñ borom ci xéewali ko suñ tubaa defal ba mu demee nag di ko yëgal dem njaamur ba mu daataa ak euh, ba daataa ak euh, dëkk bi waay mm, kokki ci lan ko telegram ne ko kala yónni woon kat defe naa bàyyeekoo na fi bis booba nga xam ne nag ci la askan bi mbokk njaboot gi daje woon ci bis booba mooy bisu ñaan ga ci lañ saxale loolu nag di ko wooteel bis boobu muy fukki fan ak ñeent ci tabaski nga xam ne ci kaamil bi nga xam ne sëñ Assane miy xam ne bindal na sëñ Tuubaa ñeent fukki kaamil am na ci kaamil boo xam ne gis naa ci mbindum loxom sëñ mu bind ne Serigne Omar Diop xadd maata fii fukki fan ak ñeent ci tabaski wa dafa na ko fii Tuubaa kon loolu lu wér la muy fukki fan ak ñeent yi nga xam ne moom la ñuy waajal mooy màggalam gi nga xam ne moom lañ jublu di ko waajal. màggal gi nag njóobeen Mbàkke lañ koy defee. mi xam naa ne ci 2015 mi mi ngi tombé le 29 wala le 28 ci weeru weeru septembre. d' accord waaw waaw donte yëgaguñ ci waaye daan ci dikkaat. kon léegi li mu ci loxoom. mu mu ma sànq ne ma ñeent ba ñeent laaj nga ma wax ñeent laaj Serigne Touba. Mm-hmm, mm-hmm. mais ko Serigne Touba toon dafa yaatu lool. Mm-hmm, damaa bëggoon nag fi saa nga saraxlu ci ci laaj yooyu ko Serigne bi laaj. waaw euh, jërëjëf sëñ Aliou ci wax ju am solo jooju jërëjëf sëñ Maodo xam nga. nit kii ki xam ëllëgam ak ki xamul ëllëgam bokkuñu. Mm-hmm. ki yàlla dénk ak njaboot dénk leen ay taalibe mu ba mu war fi mu ya xam ne yàgg yàgg dafay jóge ci am na ñoo xam ne danañ ñëw jamono duñ ko gis waaye des na ko dégg kon war naa waajal ñi nga xam ne duñ ko gis ci di ko dégg loo xam ne bu ndikkee daan ci mën a jariñoo ma waraloon kon laaj yooyu mu laajoon ko Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala ndax Sëñ Tuubaa dafay wax ci benn dénkaane bu am bu tuuti dana udiikum bi sitta kalimatin fiihinna sittu mi a faayda dénk naa leen juróom yoo juróom benn juróom benn baat yoo xam ne benn bu ci nekk juróom benn téeméeri njariñ ma nga ca bu njëkk mu ne la isa staxala naasu bil fadaili fastaxil anta bil faraili bu nit ñi soxlawoo ngëneel yi na nga soxlawoo yow jëf farata yi muy benn mu ne isa staxala naasu bil xalq ant bi bil xaaliq bu nit ñi yittewoo nit ñi yittewal borom nit ñi muy suñu borom subhanahu wa taala mhm. muy ñaar mu ne wa istaqalas naasu bil bil bil ilmi fastaqil anta bil amal bu nit ñi yittewoo xam yittewal jëfe mhm. mu ne wa istaqala naasu bi zahir fastaqil anta bi batin bu nit ñi yittewoo zahir si feeñ ci àdduna mu ne yittewal batin ndax kat diggante baatin ak baatil dana bokkul mhm. ni des na ko jiin baatin fekk na baatil la kon loolu war koy xàmmee diggante baatin ak baatil mhm. al baatin wal baatil bokkuñu mhm. kon Sëñ Tuubaa nee na bu nit ñi soxla woo zaahir na nga soxla woo baatin bi mhm. beneen bi ci des juróomeel bi mu ne wa iza staqala naasu bi dunya fastaqil anta bi amaarati al axira bu nit ñi yittewoo adduna na nga yittewoo dundal alaxira suñu Omar nag ci ci wa iza staqala naasu bi dunya fastaqil anta bi amaarati al axira jooju moo waral bokk na ci li taxoon muy laaj muy laaj laaj Sëñ Tuubaa ngir lan ngir amaaratul axira dara mënu ko am lu dul xam nit ki balaa mën a dundal àdduna balaa mën a dundal laaxira day day am xam mhm. xam gi nag mooy mooy tax mu aman fa teg fu mu tànkam ba mën a dem fa mu jëm benn waykat dafa wax ne xayaatun bila ilmin xayaatun mhm. zamimatun wa ilmun bila taqwa kalaamun mudaya mhm. nee na xam-xam bu anut ak dund gu anut ak xam ah, gu ñaaw la wax ju anut ak ragal yàlla wax ju sàngu la kon nag suñu Umar nag xam na loolu ginnaaw xam na loolu kan ca sëñ tubaa nee na bu nit ñi soxla woo àdduna na nga soxla woo dundal àllaaxira kon bokk na ci li tax mu dem bindi ñeenti laaj jox ko sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ngir mu tontu ko ca waaye juróom-benneel bi mooy sëñ Tuubaa nee na bu nit ñi soxlawoo di yër ayib bi doomu aadama yi. fexee la xam say ayib ba saafara ko. yow sa sa bopp mhm. la xam say ayib ba saafara ko. Mhm. ndax boo boo fekkee ne yow da ngay wut si doomu aadama yi kenn ku ci nekk nga ne diw nii la mel nii la mel di tudd seen ayib sa yow am nga ayib. fexee la xam say ayib ba saafara ko mhm. wa istaqala naasu bil uyub fastaqil anta bi uyubi nafsika mhm. bu nit ñi yittewoo ayib yi doomu aadama bi xama yittewoo sa ayib maanaam kenn ku ne naan diw moo mel ni di xasate waaw yow xoolal sa bopp ba xam yaay kan ma ngoog xool sa bopp ba xam yaay kan mhm. suñ tuwaa wax ci wax ci ba tey ne alqalbu ida jaala fi llahi rajaa bil asrar wal wal anwaar wal barakaat fal anwaar taquuduhu ila aljanna allati wa'ada almuttaquuna nee na xol bu jugee ci bu wëndeeloo ci pays suñu borom yi. nee na buy dellu si ay leer la indaale ak barke. nee na leer yooyu yu ne mu indaale barke yi moo ko wama dem ko ci àjjana. war a nag xolub Cheikh am Cheikh Omar radiyallahu taala anhu bi mu wëndeeloo ci pays suñu borom yi bi mu dellu see indaale leer ak i barke leer gee nag di ko gand ba xam ne ëllëg ak njabootam dana ñëw. mu ne kon naa bind ñeenti laaj yoo xam ne danaa ko jox sëñ Tuubaa ngir mu tontu ma ci ba ëllëgee bu njaboot gi dikkee fekk fi tontu loolu mën cee su mën cee sukkandiku defar ci seen defar ci askan wi. Mm-hmm. awalan yan yan laaj la. jërëjëf sëñ Maodo. Mhm. laaj yi bi ci njëkk mooy bay na zawji wa zawja mhm. diggante borom kër ak soxnaam. Mhm. mu bi njëkk bi. ñaaral bi kayfiyatu siraat wal jawaas siraat nan la mel naka lañ koy jéggee. ñetteel ba mooy kayfiyatul mayti fi qab ñeent bi ci topp mooy kayfiyatul mayti fi qabrihi nit bu faatoo lu muy nekk ci bàmmeel xam nga loolu doo ko la doo ko laaj nit ki ñu suul ci nga dem laaj ko nit ne ko bu faatoo nu muy nekk ci biir kooku ki nga koy ki nga koy ki mu di ko tontu kooku day am cëri suñu borom subhanahu wa taala ok kooku day am ci suñu ndax damay wax ne xam nga wa ma yaalamu xëyba illallah yàlla képp moo xam xëyb ndax léegi-léegi nit mun ko nekk ci bàmmeelam ñu ne suñu borom xam lu am fa seq moom wa ma yaalamu xëyba illallah waaye xëybu googu yàlla moo xam xëybu lépp alquran in na ko xames na ko waaye gis nga sëñ Tuubaa di wax ci mbindam naan àllamtanil xëyba xatta sirtu muntabihan antal alimu alladi allamta yàllaahu suñ tubaa nag su borom xamal nga ma xëy bu du xëy mooy gannaaw fii ñu nekk gannaaw la ca gannaaw la ca ñu fi li ñu fete gannaaw fi tollu xamuñu ko waaye am nañu suñu borom xamal li ñu fete suñu fete gannaaw mhm. allamta ni l xëy ba la wax xatta sirtu muntabihan antal alimu alladi allamta yàllaahu kon suñ tubaa mi suñ omar di laaj naan ko bii ba mel lu fa nit di nekk moom xam ko mën na ko tontu mën na ko tontu kon xëy ba am nañu ko suñu borom xamal ni suñu borom di jëlee kun di ko maye doomu aadama noonu lay joxe xëy bu ñeneen nit dana su nit dana umpale leen yàlla xamal ko koo xam ne xamu ko mm-hmm. ndaxte baatu kun ci misaal alquran bu ne innama amru isaara san yaqul la kun fa yakun kun alu tasawuf dañuy wax na ñaar la al asli wal farai mm-hmm. kun asli mooy innama amruhu isaara san yaqul la kun fa yakun kooku al kun al asli la mm-hmm. bu ne al kun al farai nag mooy kun gi yàlla di di dagga ca kun googu may ko may ko may ko bi moo tax suñ tubaa wax ci mbi dem ne yaquudu lil qur'ana qawdan lam yakun wa qaada liya dahra bikun mhm. suñu borom may na ma kun kon nag suñ tubaa kon ginnaaw suñu borom may na ko lépp kon bu ko suñu omar laajee ne ko nit ki bu faatoo nekk ci bàmmeel bàmmeelam loolu wax xuma ko suñ tubaa xam na lu wees la ci biir bàmmeelam la ci biir bàmmeel doomu aadama suñ tubaa nag bind téere bi ne haada miftaalu guyub fii jawaabi xilli na omar Diop mhm. li mooy tontal caabi yu faddu yi xam nga kon léegi mi ngi ubbi mhm. li may ma ci li ma jàngate mooy lu kumpalu woon léegi nag ki koy laaj moom li ump na ko léegi mu bëgg mu bëgg koo ubbil nag dina ko kumpaam mu xam ko lii mooy caabi yu fàdd yi ci tontal sama xarit benn suñ suñ tubaan nangul na suñu Omar Jóob xaritam la woon ca xillu lu foor la ndax dañuy wax ne baatub xarit ak àndandoo bën a bokkut hmm. boo demee ci na ju xadal xaaj Cheikh Bamba radiyallahu taala mi ngi wax mi ngi ci wax naan xarit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne su la jamono mbëkkoon ba tasaare la ba xamatoo foo jëm mu jël li li lépp jox la ko ngir yëkkatile ko hmm. ngir yëkkatile ko hmm. wa man isa ray bu samaan sa daaxaka chattatat samlo fii ka li li yen maak hmm. bu la jamono mbëkkee ba nga tasaaroo mu jël lépp lu am ngir yëkkatile ko waaye nag wa man fi fil xanaa li yar faaka sëñ Tuubaa nee na xarit mooy ki la nëbal sikk ngir yëkkati la ki la nëbal si sikk ngir yëkkati la léegi nag sëñ Tuubaa na kon suñu Omar Diop mi xaritam la beneen bi mu ne ko ci biir tontu bi ginnaaw bi santee yàlla ba noppi julli ci bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ay xel muridu sadiq sëñ Omar kon murid sadiq la sëñ Tuubaa ko wax sëñ Tuubaa mu ne ko ay xel muridu sadiq alxaasiqu naasir eh yow murid sadiq bi bu ñaw bi ca laabiré ca aji laabiré kon nga xam ne murid sadiq la mhm. ci murid sadiq lu jafe la yombul murid mhm. jafe la de bëri na ku ko jiñ doonoo ko mhm. nekkul ci kërëng kërëng dégg nga ak yii xew ci jamono loolu bokk ñu murid saadix ndax ahlu tasawuf dañuy wax ne ñett moo am al muridu wal muraadu wal maridu mhm. al murid mooy ki di bëgg jëm borom subhanahu wa taala muraad mooy ki egg marid nag moom mooy ki fettéral bañ a dem bokkuñu moo tax ñu ne al muridu huwa al mubtadi mhm. wal muraadu huwa al muntahi mhm. ñu di ko firee ba tey iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kon kon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa xamal na sëñ Omar na ko yow murid saadix nga waaye nag murid saadix bu ñaw nga waaye nag murid saadix buy leebri nga murid mhm. saadix buy leebri nga na ko nag laaj nga ma ñeenti laaj yoo xam ne mooy diggante boroom kër ak soxnaam ñu war a dunde ndax ñu bari jàpp na nan soxna si moom na ceeb bi ne ceeb bi neex na sol yére yu rafet yaa ngi dégg na mën a paase na mën a fóot loolu képp mooy mooy njariñ déedéet dafa am alaaka watida diini ye boo xam ne moo nekk dox seen diggante ñoom ñaar mhm. muy laaj bu njëkk bi laaj bu ñaareel ko kayfatu siraat nan la siraat mel wa kayfatul jawaas bu ñu koy jéggi nu koy jéggee sëñ sëñ tubaa sëñ tubaa ne sëñ omar nag fa ajabtuka dalika mustaqniyan anillaahi subhanahu wa taala mm-hmm. maa ngi lay fas yéenee tontu yow sëñ omar Diop mm-hmm. tey doyloo sama borom ci tontu lii ma lay tontu mm-hmm. laaj bu njëkk bi sëñ Maodo muy laaj diggante borom kër ak soxnaam soo demee ba ci biir téere bi daf ko wax ne ko war na ci borom kër bu ci nekk an yuallima zawju zawjatahu borom kër bu ci nekk war naa jàngal soxnaam at tey lislaam lu mel ne que julli woor xamal ko ko añ màkk natt asaka la ca war faratay julli faratay koor la ca war faratay euh, faratay julli faratay koor sunna ya ngëneel ya yaa ngi dégg lépp loo xam ne lislaam da caa indi ay nuqaat ay suruut borom kër bi war na koo xamal soxnaam sëñ Tuubaa wax ko sëñ Umar na war na koo xamal itam xeetu yi muy xeet yi muy gis moom moom moom si xeet wu ci nekk bu ko gisee lan la exposé wu ci jëmmam ji muy xeeti mbërëg yooyu ci am. ndax danoo ay façon lan am na kudra boo demee ci biir téere bi am na sufra. am na aswat am na ahmar yaa ngi dégg. am na chafra. mooy xeet yooyu nga xam ne xeeti couleur la. bam mu koy wax ci biir téere bi naan ko sax naqaa bi nga xam ne moom la ñuy xamee ne lii jigéen gi dañ na ci moom mooy al jufuf wal xusha mooy ak fendi ak ñaay ñaay nag mooy maanaam tuur ndox mi soxna si tuur ndox na muy weexee ca kaw bu boobaa mu xam ne ko war naa sangu ci farata da ngay gis boo gisee loolu ma ci hésité mooy da ngay gis xam ne soxnaam day set ci ci suba gi waroon a sangu julli tisbaar wala mu fay suba du ko def mhm. day bàyyi rek tib té téppre ba bés bi jeex mhm. loolu sëñ Tuubaa wax sëñ Omar na ko borom ko bu ci nekk war na koo jàngal loolu war na ko jàngal mbiri diinam yépp ba mu àgg xamal ko na ko tamit ne su fekkee ne borom kër bi jàngoo ba man ko koo jàngal wutal benn boroom xam-xam bu ne ci kër gi di ñëw di ko jàngal wala nga bàyyi ko muy dem di jàngi su fekkee ne mënoo ko bàyyi muy génn kër gi di jàngi ngir waqar na fi bu yitikun na jooje mhm. fi bu yitihin na joojee mhm. na nga wut benn ku koy jàngal mu ne ci biir kër gi di ko jàngal mhm. suñ tubaab ko say omar daan na ko nag maa ngi lay xamal ne nit ki ba ëllëgee lan koy njëkk a taxawloo di ko laaj ci kanam suñu mooy naka la yoroon ak na ko kullukum raain wa kullukum mas'ul an rayatihi noonu la ko indee ci hadis yonte boobu sallallahu alayhi ko nag na nga xam ne kullukum raain wa kullukum mas'ul an rayatihi mm-hmm. ci biir laaj boobu ma ngi ko ci wax ba tey ne ko borom kër bu ci nekk njaboot gi bu ko jàngalee muy soxna si ci li ma waxoon ndax buñ jàpp ne nag paasa beeg togg beeg yekk beeg lépp baax na waaye nan fexe ba ñu comporté wu comportement l'islam mm-hmm. yaa ngi diina xam ko mm-hmm. yaa ngi symbole la boo xam téere bi symbole la boo xam ne mhm. maanaam buñ ko buñ ko tasaara buñ ko buñ buñ ko tojee dëgg dëgg toj maanaam téere bi beneen téere la ba jeex na beneen téere la mhm. lépp ngi ci man man mën na si jël dund sukkandiku ci mën cee mën cee jàng lu bari mhm. ma ngay wax ci biir ci laaj boobu naan ko ëllëg yow mal qiyaama akbar bàyyi dana taxawloo doom ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala naan ko yaa rabbi xuslana bi xaqina min abina yow suñu borom jëlal suñu xaq ci suñu baay bi suñu borom na ko lu tax mu ne kaana yut'imuna al-harrama wa nahnu la na'lam Mhm. suñ bàyyi bii bu masaane liggéey ba ñëw lu masa indi riba la dara dagunu ci mhm. ñun ñu ko daa dundee ci xamuñu ko suñ suñ tubaa nee na suñ omar bu ëllëgee doom dana taxawloo ci kanam suñu borom bàyyam di ko wax loolu na ko li ñu daan dundalee dafa arab da dara laabu ci mhm. kaan wa kaan ci maanaam xaram la ndax am laanam lim ñu daan indi ñuy sol laabut daan dundale ñuy lekk laabut ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci yenn xadis yu mu indi yu ko am na fu ko suñ tubaa di wax ne man akadal xalaala ataa allah ahaba am kariha wa man akala al a asa allah ahaba am kariha ku lekk lu dagan bu la neexee bu la naqar da nga jaam yàlla waaye lu xaraam bu joxasoo sa deret ji da ngay taay la jaam yàlla sëñ Tuubaa wax sëñ Omar na ko nag ëllëg doom dana jël dana taxawloo bàyyi ci kanam su borom na ko yaa rabbi xus lanaa bi xaqinaa min abina ñu ne ko daa mu ne lim ñu daan dundale wa kaana taamuna al xaraam wa nahnu laa naalam dara laa ci kon laaj boobu ci tënk ne laaj bi ëmb na lu bari lu am laaj bi ci des mu ne ko kay feetu siraat siraat nan la mel mu ne ko jisrun mam du matn ala matn jahannama mhm. maanaam a pont la boo xam ne dañ koo tàllal ci digg sawaras jahannama mhm. maanaam montagne da ci ay montagne da ci am alfu hubuut wa alfu suud mhm. ay montagne da ci am alfu hubuut wa alfu suud te kenn ku ci nekk dañ ci jaar ci ay dafa am ay xanaatir xanaatir yi mooy pom yoo xam ne maanaam pont yoo xam ne maanaam barab yoo xam ne kenn ku ci nekk da nga ci jaar barab yooyu tamit da ci am ñu ci taxaw kenn ku ci nekk boo dikkee am na lu mu laaj julli ki woor ki añ màkka ki nangam kii nangam ay étape la ay étape la hmm. xam na nga xam ne kenn ku ci nekk da nga ci jaar mu ne ko kon noonu si non xanaat yooyu dafa am ci biir daan na ko am na ñoo xam ne ñu koy rombee day mel ne xef xefa xippi hmm. ne ko am na ñoo xam ne bu ñu koy romb dañuy waaxu ñi dañuy dox ñi dañuy raam ñi dee ni man fasu naaru goor limal ko ci xeetu ñu rombin yépp ci biir ni nga xam ne bi mu ko melee siraat nan la mel ba noppi nag bi mu koy romb bi ko melee siraat ba noppi loolu mooy bi mu koy melal jëwaas gi romb waay siraat mm-hmm, mm-hmm. romb waay romb waay romb waay bi loolu mu ci gàttal ndaxte waxtu wi loolu nga xam ne tënk na ko ci laaj boobu ndax benn bu ci nekk benn laaj bu ci nekk mat na conférence mën na téere kay benn bu ci ah. nekk ab téere waat encore ma ngoog mais foofu tout waaw bismillah tout ah. parce que da nga wax léegi ci ragal yàlla ragal yàlla ak sëñ Omar Diop te sëriñ Tuubaa def ko ci moom dafa fu fu fu sëriñ Tuubaa bind wax ne mhm. inna la si lam yaxsa rabbal alamin mhm. laysa bi alimin wala af naan funun mhm. kon kooku kooku moom loolu mucc na ci. Hmm. wala af na sunu waaw waaw. Ah, aywa bay bayit boobu laa bëggoon nga xam ne ko dëxëñ ci dundam parce que tamit dina la si lam yaxsara ban alamin. laysa bi alamin wala af na sunu. wala af na sunu wala af na sunu. waaw te sëñ yaa ni maanaam même boo naanoon téere yi. waaw jé sax nga ram xam nga taqwa huwa imtisaalu awamir wa ijtinaabu nawaahi. ragal yàlla mooy jëf li yàlla li yàlla digle mooy te li mooy te ni ko la yàlla tere. Mhm. mooy taqwa dëgg tafsiran. awalan mooy mooy awalan. mooy lu am mooy taqwa mhm. xam nga wa man yattaqillah يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما لا يحتسب لا يحتسب ايوه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ الامر قد جعل الله لكل شيء قدرا xam nga taqwa mooy ëmb adduna gis nga ki ra ki nit ki sax li muy liggéey taqwa da ca war a am li ngay wax taqwa da ca war a am mm. li ngay lekk taqwa da ca war a am ala kulli fi'l xaraka boo am taqwa da ca am mm-hmm. moo tax suñ tubaa wax ne loo loo mën a xam ci adduna ci rek loo yàlla xam xamoo dara inna alladi lam yashrab al alamin laysa bi alim wala afnal funoon ci lu wér laysa bi alamin alquran wax na ittaqullah xaqa tuqaatihi am aaya bi wax na masataatum kon léegi masataatum aywa masataatum kon loolu nga xam ne maraata bi am na suñu Omar Diop nag ragal yàllaam bokk na ci ragal yàllaam lii bu ragal yàlla ci la bokk parce que li tax mu laaj ko waaw kay ragal yàlla ci la bokk alxawfu la waaw alxawfu la ragal la waaw alxawfu la xam nga dañuy wax ne bi ngay dund sa sifa sifatul xawfi lay doon moo boo toolee su dal sukuraat nag ar raja nanga nga nekk na nga dikk ci maqaamam raja mhm. waaye bi nga junjun nekkal ci maqaama xawf al xawf mais bi nga demee ba nekk tollu su lalu sukkandiku dee war a faatu na na nga nekk ci maqaamam raja yaakaar yaakaar yaakaar rek na nga yaakaar moo waral taqwa googu mu am taqwa googu tamit moo jur al istiqaama mhm. al ak jub mhm. jub googu nag la koy may mooy la koy may mooy ragal yàlla googu nga xam ne moo nekk ci biir nikki ki ba ragal yàlla istiqaama du mën a am kon al kalimataani mu mutaxaaraan ñaari kalima yoo xam ne dañoo kalima la yoo xam ne dañoo lënkaloo kon suñu Omar ci laaj boobu ba tey ba tey boo continuer bi mu waxee jawaas googu siraar gi ci tënk mu ne ko nag nit ki nu mu war a nekk ci bàmmeel muy war xam nga bammel buñ la fi suulee buñ la suulee lam la njëkk wax moom bàmmeel amma alimta anni baytu duut ci biir tere bi ndax xamoo woon ne kër gu sax laa amma alimta anni baytul ak la ndax kër laa goo xam ne ku dugg ci man ma lekk la amma alimta anni baytul wahda kër laa goo xam ne man dama kenn képp laay def ah sëñ Tuubaa ne suñu Omar fa in kaana mafliha nee na waa ji bàmmeel di wax ak loolu nee na bu fekkee ku taxale ku nar a taxale ajaaba mu jibal xabri mhm. day tontu tontu di bàmmeel daal koy wax sëñ Tuubaa wax sëñ Omar ko bàmmeel ñaar imma rawdatun min riyadil janna aw xufratun min xufrati naar benn muy dëri ci dëri ajane wala muy pax ca paxi sawara ya wala muy pax paxi sawara daan na ko nag ki nari taxee bi boo xamee ne daan na ko nag bàmmeel buñ ko gasee ba suul la ci ba noppi bu bu ñu la dencoon demee malaaka mi njëkk ñëw ruumaan la tudd ruumaan moom buy dikki day xotti suuf bu dikkee la mu la njëkk wax ma uktub maa kunta ta'malu fi dunya loolu daan di ci àdduna bind ko soo ne aw ma xalima mu ne la sa baaraam yi aw ma daa mu la sa lor yi aw ma këyit mu ne sa perkaal bi kon lay amatut gannaaw munkar nakiir gannaaw rumaan munkar nakiir ñoo ñëw Sëñ Tuubaa nee na suñu Omar na ko munkar ak nakiir wa kullum xaayifun min zeyni hatta al malaayikatu duuna mayni mhm. ñëpp a leen ragal ba ci malaayika doo ragal munkar nakiir ca ne ko ñooñu tii bu ñuy ñëw kenn ku ci nekk da nga indi ab bolde mhm. ca nee na bolde bi ñu yor bu nit ak jinne dajaloo woon ba ko yëkkati duñ ko mën a yëkkati la wajtamaata insu wal jinn bëgg koo yëkkati nee na laa yaqadiruuna duñ ko duñ ko attan nee na bu dikkee nag laaj la man rabbu ko koy sa borom man nabiyu ko maa kitaabu ko maa diinu ko ngay daal tontu bu fekkee nag ku nar a taxe nga nga da ngay tontu tontu tontu na nga war a tontu. lu jub lu jub. bu fekkee nag ku taxe ku taxawul la na na na ca la koy limal ci biir téere bi di bunti àjjana yi juróom-ñetti bunti àjjana yi. Mm-hmm. limal ko ci nit juróom-ñetti sawara yi. juróom-ñetti buntu àjjana yi juróom-ñetti maanaam juróom euh, àjjana yi yëpp jàngal na ko ci xamal na ko ci bu àjjana bu ci nekk na mu tudd ak ñi ci war a dem kon li mën ko ci biir it ay bàmmeel tàncin bi nga xam ne moom la tànc doomu aadama mm-hmm. nga xam ne wax na ci ba dee bi ci biir téere bi Sëñ Tuubaa mi ngi ci wax na ko law najaa min ahal la najaa min Abdullah ibn Mas'ud mm-hmm. ne ko tàncinu bàmmeel bu fekkoon ne kenn dina ci mucc ci suñu Omar Saadu ibnu Maas laa bëgg a wax mm-hmm. mu ne ko law na mina ahad la najaa mina Saad ibnu Maas na ko yee eh, suñu Omar Diop tàncinu bàmmeel ba fekkoon ne kenn dana ci mucc Saad ibnu Maas dana ci mucc mu ne ko Saad ibnu Maas bi mu faatoo juróom-ñaari fukki junni malaayka ñëw jugo ci ko asamaan jullee si ko te nee ko ne jii ci ba bàmmeel bàmmeel tànc na ko na ko law na mina ahad la najaa mina Saad ibnu Maas loolu kon muy aw jàngale ni yoo xam ne maanaam li comme li nga wax rek téere bi mhm. laaj bu ci ne ab téere bu nekk rek beneen téere moo nekk ci biir <laughs> parce que borom xam-xam moo laaj borom xam-xam waaw xam naa li ñuy wax naan cheikhul murabbi mhm. teg na ko foo xam ne fii mhm. euh, ku ba am na lu nekk ci moom ba mën a laaj lii <laughs> parce que nag am métier am njàng yombut waaw gaa yi gaa yi bari bari dañuy wax ba sant Diouf bu amee métier kii mais kii moom li mu def borom xam-xam dëgg ko man dëgg la dëgg la moo tax kooku li tax li tax nga sax borom xam-xam la maanaam Miftaahul Xuyuub bi soo jàngatee ci jamono ji nga xam ne Serigne Omar mi ngi koy laaj Serigne Touba gannaaw géej gi lañ jortu nañ ne te jamono jooja Serigne Touba mi ngi nekk woon ci résidence surveillée la kon leer na ne suñ Touba amuloon jot si njaareem mbaaw xam ne kon amuloon jot kon yitte ji Serigne Omar amoon ci diggam ak boromam ak yitte ji Serigne Omar amoon ci diggam ak boppam ak diggam ak Serigne Touba yitte ju toll noonu la Serigne Touba jëlaat delloo ko ko moo tax mu tontu ko téere bu toll nii waaw dëgg de. loolu lu lu war a jàngat. lu leer nga wax. waaw ndax xoolal jamono jooju. Sëñ Tuubaa ci xat-xat ci diggam ak boppam rek. nga xam ne lu bari. moom jaamu yàlla. ak wéetal suñu borom. dong la laakaar ne bu jógee ci géej bi ñëwee ci loolu lay ne. kon su ñëwee gis ñu gis téere bu mu toll nii Miftaahul Xuyuub Sëñ Tuubaa Sëñ Omar jàkkaarloo moom di ko laaj mu toll ko ñeenti bunt yi yitte ja Sëñ Omar amoon diggam ak suñu borom. ak yitte ji Omar sëñ Maodo am ak sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa delloowaat ko yitte ju toll noonu ba tontu ko téere bu toll mhm. ko ciy may mooy sëñ Omar ragal yàlla gi nga koy waxee mhm. ak bëgg sëñ Tuubaa gi mhm. moo taxoon sëñ Tuubaa it daal di koy wax ne ko mooy ba mu àndeek sëñ jaaja di ko siyaare ji te sëñ fekk sëñ Tuubaa mu ne ko Omar maa ngi lay xamal ne maa yàlla nan la ak ku la nangoo topp mbaa yàlla ku yàlla dong la ko sëñ Tuubaa di def kon ragal yàlla gi am yitte dëgg dëgg diggante boromam ak yitte diggam ak sëñ tubaa moo taxoon sëñ tubaa nag sëñ borom xamal ne sëñ tubaa ne ko ndax sëñ jaaja mi ko nettali nee na ci nopp sëñ tubaa la ko déggee ma abdu jaara ma abdu jaara parce que ñaar minute la déggee mu ne ko sëñ omar c'est sunu borom sa borom nee na omar mbaa yàlla na la ak ku la nangoo topp mhm. ba mu ko mbaa yàlla mhm. xoolal ragalaat yàlla gi mhm. ñam àndaloon commencé bég mu ne leen déedéet nit lu mu woon ba jëlee ci ak mbaa yàlla da caa war a sax wala dëgg mooy jaamu yàlla ak liggéey waaw waaw ma istixaama bi nga doon wax mooy jub rek taxaw rek. mooy istixaama boobu rek. mooy istixaama boobu moo tax moo tax sëñ Mbàkke Bousso radiyallahu taala si woon ko ba wayoon ko ba wayoon ci kenn ko kii way Omar Diop la xam nga Omar Diop mhm. kii way Omar ji mhm. xam nga boo dee ba ci bay di sëñ Mbàkke Bousso yow maa ngi naan labiban salihan omara xillul kirami lazi falfatlu qad nusira minni salaamun buaydil ahdi la samahu ridan lahu wa kulli kullahu shakara waaye xoola bayit wa ribhun liman jaahu lillahi aw nashabin bénéfice ñeen la ku dikkal sëñ Omar ngir yàllaa ko askan waaye nag xusrul liman jaa li xeyrillaahi aw xadra xusrul li xeyri la waaye la ca teg mooy gësbul muridi sëñ sëñ kàndi bu salam wax gësbul muridi li rabbil arsi xaaliqihi waaye nag naarul maridi wa haza alqawlu qad shahara dari suñu amar mi mooy xëccub taalibi jëm ko ci borom desibul muridi rabbil alas quoi cheikhu tarbiya loom cheikhu tarbiya daarul mari di wax sa xol ko sala waaye nag bayit wa may mujjee nag mooy li mujj ci bayit bayit ca way yooyu mooy bahjul asirati fii sirrin wa fii alanin law laa wasaahu lana man qad baral bashara na jëmm jii di suñu Omar Diop suñu kandi bu sa nee ne mooy taaru njabootam mooy taaru askanam na budu woon ak moom mii cay dana ñaaw law laa wasaahu lana man qad qad baral bashara saxiix tabarakallah hakaza kooku nag kon kon kon rajulun karimun azizun su ilmin ah wa nangam ila ila axiri lépp rek yàlla defal na ko tabarakallah xam naa kon maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ba ci loolu daañu daañu dégluwaat émission bi incha allah samedi ci suba gi di leen sant bu baax a baax signal yi maa ngi lay baax a baax jërëjëf ak tamit vraiment imam waxtaan bi na lool gis naa dalail yi nga indi ak tamit fi nga ko teg wax dëgg yàlla borom xam-xam moo doon wax yow itam yow da nga daan rek <laughs> <laughs> yàlla yàlla defal ñu sutura kon mbokk yi doon seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf